طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 metti rek lu mu dal si joboot ñëpp ay yaay lañ ku ko dégg doo nelaw moo tëddee na sa fit du dal parce que léegi ku mu dal metti na juruñu waaye ka ko jur xam nañ moom moom ak bokk yem ci moom jureel dafa metti premièrement mu ngi am si cité bi wallaay metti ñu lool nag metti ñu lool man nag déggul ma laax bi may yow léegi laa ko dégg léegi nii laa ko dégg léegi fekk sama sët moo tuuri mbalit moom lay wër ma dayee ñoom ñi di ko wax noonu waaye man yëguma sama damay teel a tëdd yëguma ci dara yàlla xam na ko yëguma ci dara. Mm. yàlla xam ne yëguma ci dara. li nga wax sànq ne jëye ji depuis dimanche la woon. ah da ngay xool ñu yëguñ ci dara di cité bi lañ dëkk mais man maa ngi dëkkee nee ci ko mais ñu yëguñ ci dara yàlla xam na ko kii sama rakk la mu ngi dëkk ni këram ak ni oto bu yàgg waaye yëgu ko ñëpp yëguñ ci yaa ngi sa biir kër demoo fenn génn rek tombé ci man damaa génn di romb nii rek sama doom sama sët moo tuuri mbal gis ma ko moom lay wër nii ma ñëw tombé ci lii naqar tiis ak naqar ñu bokk rek waaw dem nag yàlla na ko yàlla xar aj ñuy dem est-ce que man muy monsieur xam naa leen sax déedéet man sama doom bu góor ma ko woon léegi si TikTok bi léegi nii ay xaw ma man du ma seetaan tel du ma seetaan TikTok yàlla xam na ko xale lu xaw lu xew daal sama doom ñoo may won yaay lii moo xew même xale mi reyoon ginnaaw rek xale ma ko woon ne ma yaay kii leen reyoon ginnaaw rek asi dabala ci kii la doon wax ne dafa métti waaye ñëw ah, man di fi laa dëkk wax dëgg yàlla waaye fu ma fi déggee police daal nga xam ne am na lu fi xew xañ na wala ramasse mm-hmm. daal doy na waar daal sécurité daal étage bi toll nii nan la a duggee ci biir étage doy na waar doy na waar doy na waar doy na waar doy na waar torop doy na waar torop. Mhm. doy na waar torop waaye yàlla rek. lu ñëw daal ñu ngi ko wéet suñu borom. ñoom mhm. ne ndogal suñu borom mhm. la. yal na ko yàlla suñu borom may ko yaay seen waajur xolu muñ. waaye métti na ku mu dal ku ko xama koo xamul métti na si yow. am leen yàlla may xolu muñ njaboot bu ne tey boo tëddee doo nelaw metti na lool di sant ngërëm rek. yal na yàlla jàppale yéen itam yalla sàmm leen fi ngeen toll yàlla aar leen journaliste kenn gënu ko sonn ci àddina yal na yàlla taxaw leen sàmm leen aara leen boppam làq leen fa yàq leen yal na yàlla muur leen maraay yëmmaane yal na yàlla téye leen boppam ci loxoom di leen sàmm bu fu ngeen jógee ba delluwaat seen i kër yàlla di leen sàmm ci kàttan yàlla su boobu yéene naa leen ko ci sama xolitoo jërëjëf قل ينتمون لحزبكم يعم التشفيع أجمع أكتر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 ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا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 فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الدير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفه بالسلام والتوبة عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه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 di ko lancé suñu nguur gi fi ne. Mhm. Ah, di ko lancé président jomaay mhm. di ko lancé premier ministre ah Ousmane Sonko réew mi nañu gën a yokkaat caméra surveillance yi. Mhm. waaw yokkaat kaaraange yi bu baax parce man booru arène nationale bi laa dëkk maag Aziz presque sorante wuñ dara. man bu làmb amee. sama biir néeg la may racromasé li di fekk. ma sonn trop te dewuma làmb vraiment. waaw nañ yokk kaaraange gi bu baax a baax a baax parce que ki def lii mën na def suba leneen. Mm. parce ki fekk nit ci biir appartement am rey ko. rey ñaari bakkan. Oh. koo xamante ni waa waajuram moom lañu yaakaar. Oh. kon kooku mën na defaat leneen. Mm. maa ngi lancé daal nguur gi fi neen mu jël ci matuwaay. Mm. te yoon def liggéeyam. waaw est-ce que jotul tamit aussi fecckat yëpp lii yee leen ñu nekk benn di yëkkateendoo di dóorandoo. waaw fecckat yi nekk nañ benn parce que démb. association yi bari na. waaw parce que démb. Ndeye laa gis mu def benn vocal. Mm-hmm. ci turu Pa Moussa Sonko Pa Moussa Sonko léegi la ma woo ne ma mu ci yoon bi mu ngi ñëw def euh, benn vidéo benn son benn kii vocal ci euh, vocalu Pa Moussa Sonko ne ñëpp ñoo ngi koy jooy jooytu parce que Aziz dafa nekkoon nitu ñëpp mhm. dafa nekkoon nitu ñëpp Aziz Dabala du tànkam lu kenn mhm. du tànkam lu kenn vraiment man moom dafa sori woon ci man mhm. waaw Pa Moussa maa ngi leen koy masaw di ko masaw Laye Ananas parce que Laye Ananas mooy suñu kilifa moom moo ko njëkk a yóbbu mu tukki riisi maa ngi koy masaw Aziz parce que Aziz Aziz la waaw père maa lay masaw Aziz di la masaw li ñu bokk li ñu bokk métti na torop torop torop torop waaw looy dénk famille bi ah muñ parce que li xasa am ama yàlla bu la joxee nanguwaat parce que Seydina Mouhamed jouru jullit la yàlla jël doomam mm. te mooy gën gi mbindeef kon ñun duñ fi bàyyi ñun ñëpp mhm. waaw maa ngi leen ni ñaan xurub muñ mhm. waaw metti na trop waaye nañu muñ lii la ko yàlla bëggee nii la ko yàlla bëggee fan la koor bi toll koor bi nag moom la ñuy xaar parce que jóge nañ jalal jàmm yóbbu ko setewu mhm. waaw fu mu nekk nii koor bi rek la ñuy xaar ni ñëpp nii moom la xaar parce que il faut que ñu autopsie yoon def liggéeyam waaw ñu ngi lay jaajëfal waaw jërëjëf barke sëriñ Touba Mbacke xale yi lay teetee xam nga dañ naan góor gi daar gaa ngi nii mais Aziz guy gi daar la Aziz xoolul artiste bu siiw déedéet Aziz xam nga la xool artistes yi nga xamante ne ñoo nekk ci art bi di góorgóorlu da leen di jël te leen taf la si boppam jàngal la ba nga mën ba àdduna bi yëpp xam la mu jël la bala nga dem ak sa bopp kon ku def jëf ji nii daa ñaaw rek mais mënu na ko fee bàyyi yàkkal nag àddina bi yàkkal ay xaritam yàkkal ñi nga xamante ni ñoom la doon sekkal liggéey yàkkal ki nga xamante ni mooy ndayam bi nga xamante ni amul ku dul Aziz Dabala yaayam amul ku dul Aziz la bëgg Aziz dañ daan jeu ju ba ñëw balaa muy tëdd néegam day ñëw ba ci yaayam nuyu ko ba pare waxtaan ak yaayam ambiance ak yaayam soog a ñibbi mais yow ana yow ana man. ñu fekk la ba sa biir kër nag ray la sa biir kër. ñaaw na dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw kon biir kër yi amatul sécurité kon nanu jël suñuy mbalaan te fanaan ci mbedd mi xam ne mbedd mi ëpp sécurité. mu mel ni euh, ay dernier sortie ñu seetloo ki nga xamante ne mooy xale bi fi jotoon ñàkk si kàddu yi la doon wax ni carrément pendemoo dafa war a ñëw képp koo xamante ni da laa rey euh, da ngaa rey ni da laa war a rey foofu tey jii nii même pas semaine euh, yàlla jël ba kanam si anam jii nii quoi en tant ay ami yoo xamante si ni jege ngeen te yàgg ngeen lan moo doon seen taxawaay après kooku doomu suñu doomu ganaar bii la sàmba mm-hmm. Samba waaw doomu loolu barki démb la fi xew ku ne gis na ko ci internet yi mu koy métti lu torop nag di ko métti lu si la naan ku war a rey dan laa wala rey parce que Aziz Dabala doon na champion boo xamante ne du nit kuy daw Aziz non góor gi wax wuy déedéet boo ko tooñee day xeex ba naaw parce que am na fulla ci boppam am na caractère ci boppam boo xamante ne du nit kuy daw Aziz Dabala ku koy ku ko xam xam na nga ko xamee jom fulla fayda Aziz Dabala bañ na ko ba këram la këram la ne demul dikkul bu géejee ba ñëw mu nga këram Azawala bëggul lu dul ay xaritam gis nga ku def jëf ji barke Serigne Touba Mbacke xamunu mu demee de mais Aziz Dabala kenn du ko seet si bëreet ne Aziz daay seet si ñun ñi xaritam sax amuñu fit ci moom fit boobu amuñu ko bëreet rek dem seeti ko déedéet Aziz Dabala balaa nga koy seet si day am si yow da ngay am maa ci moom allo Aziz foo maa ngi ñëw sa kër ma ni la ñëwal te boo ñëwee yaa koy woo moom moo la ibbil Azawala doo tëb seeti ko déedéet doo tëb seeti ko Azawala boo koy seet si moom moo lay ibbil da nga koy woo accident moom moo lay ibbil. voilà li li dëkkee R plus 4 la comment ko def ko ko. man loolu tamit dama yéem quoi kër kër. nga rey fa ñaari nit te kenn yëg ko seede yàlla mais noonu nag fépp lay jóge yàlla suñu borom sax am na ñoo xamante ni bëgguñu yàlla am na ñoo xamante ni bëgguñu yonent bi gis nga wësi fa jàkka ji nii sax am na ñoo xamante ni mu ngi leen di déranger kon noonu am na. bañ nit ki am na dañ bàyyi ba julli ba pare ñoo leen di jaajëf. acca jërë ngeen jëf internet yi ba tey ñu ngi fii ci Pikine ginnaaw raay suñu waajur nag moom mi moo jur ki nga xam ne mooy Aziz Dabala doonoon ko ñu ràññee bu baax ci Sénégal mu doonoon ko am yar waaye tamit di def liggéeyam saa su nekk nit ñi di ko bàyyi xel yaay ñu ngi lay jaale li ñu bokk sa doom bi nga xam ne moo fi bàyyi ko yàlla na mu jaal yéen kay yéen laa ko war a jaal yéen nga xam ne yéen ànd chaque jour mais li nga ko gis bëriwul li muy nekk fii koy delloo jërëjëf jëf. yaay li dal sa kaw rek ak mbetteel rek métti trop ak mbetteel ndax loo séntu woo prévoir ko sóoraale woo ko waaye jaam ak pexe yàlla ak yàlla lu mu def rek noonu la lu ko neexee mu def ci jaamam mm-hmm. mu defee nan ko nangu. Mm-hmm. da nga ko nangu rek. Ah, ay ñeenti fan rek. 4 mhm. jours. waaw 4 jours daal la toll ndax dem naa caawe. bu fekk ma si ma kër rakk bi dafa ma fekk. Mhm. waaw dafa de nga dafa mën a euh, commenté nekk da ngay ree rek. mu tooñ sama rakk sama benn rakk mu tooñ ko ñu ree ba doyoo mu génn dem. Mhm. boobu ak lii à 3 jour daal la war a démb bi ma ñëwee may Aziz ba te ñu ngi koy woo ba démb ba léegi gisuñu ko ah Aziz fan la war a dem te ma boo fu mu war a dem daf may tàggu war a dem day yaay maa ngi dem béréb sàngam même Touba sax ñu bi dem Touba yaay dama ko prévoir ah laa am semaine ba ay cinq jours yooyu waaw waxoo ba mu def ñetti fan Aziz woowu lan la Aziz xam naa fi mu nekk da laa ci am lii léegi naw naw lay ñu ko ah na mu ko maa ngi woo Aziz ba sonn jotuma ko waaw maa ngi dem buntu këram. def sonné naa foofu itam wuyuñu waaye ñu bougé ñu bougé rek amatu la leer ñu di lañ ci am kese kese kese kese kese bi affaire bi amee dañu ko doon ko nëbb ba ay trois heures du matin quatre heures doo ko yëg waxuñu woon décédé à Aziz waxuñu ko woon xale bu góor ci waali bi la ñu wax waaw uh-huh. waaye bu Aziz dañ koo ndëbb moom waaye xam naa yëg naa ko sama yaram yëg naa ko sama yaram waaw ndax man ma nelaw mën ma nelaw man ma nelaw moo di tëdd deew seeg man tëdd uh-huh. ba ci fajar gi daal lan nga xale yi demoon dem yóbbu ko yóbbu hôpital uh-huh. ñoo ñëw ma dem ñuy waxante ma tëb ma gis ñuy jooy man kay xanaa da ngeen maa nëbb am lu am lu xew ñu def caake doo ko yëgee man naa ko mujjee yëg. naa ko mujjee yëg. ñaawteef bi nga xam ne jot nañ ko def sa kaw doom ah xaaree woo ko woon ku nekk soo matalee da dem waaye ni ko defee dafa yéeme lool bi nga bi nga jotee xibaar bi ak enquête bi tamit fan xam nga xanaa xanaa lu woon def ci liggéeyam rek uh-huh. ndax rey bi bëri na uh-huh. agression bi bëri na. Uh-huh. waaw rëy bi bëri na trop trop trop te mu loree itam du féete fenn du féete fenn man boo ma mas jaaxal léegi nag yoon mu war a def liggéeyam lu ko neex rek mu def yoon bu fekkee dafa koy da gis te ku ci règlement baax na bu fekkee da ko gis gis def lu ko neex te ñu xam ne loolu la waaye ñun ñàkk suñu doom ñàkk doom kenn mën koo remplacer bakkan kenn ah, muñ ko non non wax nga ñu si xale yaa ngi sétéwoo ak yoma ñu ko jot tey ba léegi waaw doon eh, ko jël fii doon ko jël hôpital bi dalal jàmm uh-huh. yóbbu ko si kawam. waaye cee nga nekk nii cee nga nekk nii. ñu ngi ko yàlla xare àjjana. te eggali ndawam. moom ki nga xam ne moom la bokkal. Uh, waali mi dem da ko xamoon ñu noon ko. non waaw. Uh-huh. waali uh-huh. toujours moom la yónni fii. su amee lu muy yónni. fii la koy yónni muy xale bu baax xale bu yar xale bu teey su yónni fii la yónnee toog fi jox ma li ma jox demaat yàlla na yàlla nangu jaay bi. yaay jënd. metti na lool ñu ñu ngi lay jaale bu baax a baax. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp du nuyu waa Sénégal nuyu monde entier métti na trop nag mais lépp dañ koy delloo suñu borom rek yàlla soxlaa moom ñëppay ñaaw Aziz moom wax dëgg fi yàlla moom amul benn problème nit àdduna la parce que artiste yëpp Aziz seen Aziz la waaw Aziz borom baax la metti na trop waaw parce que Aziz ñoo bokk ndey ak baay man maa topp su moom man maa topp su que avant lii sax Aziz wérul woon te feebar semaine bi semaine bii nii rek ñu génn nii parce que liggéey naa wàcc fekk mu toog sama yaay ak sama rakk bu jigéen ma ne ko kaay añ mu ne ma non damaa xaw a tawat ma ko dangaa jeex sax mu ne fan yëpp damaa feebar ma ko yàlla baax na bis boobu laa ko mujjee gis te yàggul loolu mën na semaine ay semaine lay toll daal mhm. waaw parce que fekk jour boobu doon ñëw fekk amoon na benn boy amoon na benn dese amoon fii si koñ bi fii. jour boobu la mu laa ko mujjee gis interview boobu noonu doon def mm, wér booy bi mm. boobu la mujjee wax boobu laa ko mujjee gis. Mm. dem daal laa wàcc te fekk maire bi tamit di soog ñëw ni ma Aziz ñaari fan maa ngi koy woo mën na jot jéegi jéegi tamit samay xaw a changé mu ko la xew mu ne man. lu ma gën di dëgg lu ma gën di dem ba dëgg. man mhm. ko bàyyi li ngay wax. Mhm. ne man ah sama xol neexul de. lu mhm. muy wootee lu woote jotul mais mi ngi xool ku gën a jege aji rek neet mi ngi koy woo ñooñu tamit suñu woowee aji duñ ko jot ñooñu tamit jaaxle. man ko garaawul léegi man su kanamee dinaa fa dem su ma jullee gee pare ma julli gee pare déggante Nabou Leye moom it mi ngi woon foofu moom it moom it daa woo aji ba sonn man jotu ko ak yeneen gars yi tamit. bu ma ñëwee tamit ñoom it ñu xaw a triste quoi fekk ñoom ñëw naa ñoom it ñu dajji bunt bi mais amuñu fit pour dugg. parce que xamuñu affaire bi mu demee. fi drame bi am waaw. mais man bu mu ñëwee ñoom daaj nañu bunt bi ba ministre bi monté waat porte bi. ñoom ñu ci biir. ñoom ñu ci biir. fekk fan benn mag bi fekk naa fan mag bu benn mag bu góor tamit ku ñu naan Modou. mooy ba mu ñëwee. mu ko fekkee foofu man ne ko léegi bunt bi menuisier bi daal tëjaat dañ jéem a xool ni ñu tijjee bunt bi maa force porte bi porte bu tijjee ko fekk appartement bi yëpp ay deret la. fekk appartement bi tamit désordre quoi. ma force dugg tourné fekk côté bu am na salle de bain fekk beneen booy bi naan waali tëdd na foofu mooy si biir lañ ko jam ba biir bi génn. waali si bopp waali maa ko tiim nii ma woo sama mag bu góor bi mu fekk moom ñemewul man ko kaay xool mu ne ma man ko bul tiit kii du Aziz sama xel xaw a dal tuuti man alhamdulilah man ko attends am na lu des dañ xool porte yee ko nit xool beneen porte bi xaw ma sàll xaw ma nekk porte boobu dëgër sama xel ñaw man Aziz darul tel fii téléphone néew te Aziz kër Aziz gisuma ko waali dañ fekk te waali dee na te muy commencé yàqu sa foo xet baa ngi commencé kii parce que xam naa lii ay dimanche si guddi lay doon quoi parce que mais xëy na woo ko lundi ak mardi jotu ko te mardi si ngoon laa gont dem foofu léegi euh, ma ne sama mag bi nañ foo supporté ma foo supporté foo sama nangul tuuti ma ne attends comme woo comme mbay benn benn copain moom it ku jëkk Aziz mi ngi police Pikine nañ xaar mbay kon attends su police ñëwee ñoom it xëy nañ ñoom it jéem a xool ñu ngi daajee porte bi ko yaagul police ñëw sappo pompier tamit ñëw hmm. def liggéey bu rafet hmm. sappo pompier hmm. ak police Sénégal non dem kontaan naa si ñoom maso spécial dëgg dem taxaw nañ taxaw rafet waaw nañ liggéey bu rafet bu ñu ñëwee ñoom it ñu waat ministre ministre bu daaji porte bi fekk Aziz tamit rey nañ ko ba sànq ko foofu. ci ci biir salon bi ci fekk noonu. non nit ñoom. fekk Aziz rey nañ ko. xam naa ba sàngu ko parce que ministre bi laaj laaj na Aziz nu mu dem ni mu fekkee Aziz naa yeesu Aziz dafa dañ rey ba sàngu ko si li ma ministre bi wax. parce man gisum Aziz. ba ma duggee man booy bee laa gis. booy bi ñu rey ko rey bu ñaam mu tëdd salle bain bi. Mm-hmm. butéel biir bi génn. xam mais man Aziz bëggoon naa kaa wóor naa daji porte be mais wóorul mm-hmm. sama xel dalu te mm-hmm. kee dem na police te police yi ngi ñëw mm-hmm. kon naa bàyyi police daf liggéeyam mais police moo gis loolu mais man laaj ma police ministre bi laa laaj ministre bi ma carrément ñu fekkee Aziz naagisul hmm? ñaaw na trop ñaaw na trop man maa gis Aziz corps bi laa gis léegi police daf liggéeyam hmm. sapon pompier tam daf liggéeyam hmm. liggéey bu rafet ñoom ñu def suñu liggéey tamit jël ko yóbbu dalal jàmm ba ay 3 heures du matin 4 heures du ñu ngi dalal jàmm sama grand yi tamit ne fa ak man ci leen ñibbi si fii tamit xam nga xaw a noppale tuuti grand yi xëyaat ay 10 heures 9 heures dalal jàmm maa ngi diggante sama benn rakk bu góor sànq. ñu rawale ko CTO instant yii nii autopsie la ñuy def. autopsie la ñuy def kon waxaguñ ñan kañ ngeen di jot tool bi. non waxaguñ dara nag. Mm-hmm. Aziz nga topp si moom ngeen bokk ndey ak baay. Aziz ñoo bokk ndey ak baay moo namp jox ma namp. macha allah ndax mus na la denk ay kàddu laataa li di am waxtaan ngeen ci loo xam ne ay nit dañ ko doon menace wala lenn yenn saa yi. non Aziz Aziz bu ragal. su bëggee dégg dëgg rek. Mm-hmm. Aziz bu ragal fii ku fi dëkk ginnaaw raay juddoo fi màggee fi ragal ragal dëkk fi. Mm-hmm. du ñu ay ragal bu ñu du ñu ay du ñu ay ragal du ñu dellu ginnaaw Aziz gaynde la xam naa lu war a am moo am ndaj xam naa kii tamit xëy na tamit xëy na daal lu war dañ kaa bett wala ndogal la wala leneen ak leneen xaw ma si dara daal man non man jotu ma dara parce que Aziz moom su bëggee dégg dëgg rek ñëpp la jox jàmm hmm. amul ak kenn benn affaire foo ko fekk day rek su doon jotaay ak yow ni soo jógul dem moom du jóg su doon toog fi jotaay nii soo déplacé wul du déplacé day wax rek waaw borom bu baax la yaayam gërëm na ko papaam tamit gërëm na ko ba sàngul suuf ku bëggoon njaboot amul jabar amul doom mais ay doom magam ay doom lañ ginnaaw raay bi mu daj ñëpp la jox jàmm mais yàlla baax na nguuru Sénégal tamit nag maa ngi leen lancé message bi dee dee yu bëri na te Sénégal dee bëri na trop te mënu ma comprendre man mii nekk xale bu ndaw te naa leen Sénégal dëkk musulman la su dee cent pour cent quatre-vingt-dix yëpp ay musulman lañ mais la moo tax mënu ñoo d'accord li dina wax lu diina wax xam nañ ko mm-hmm. diina wax nee mm-hmm. ñu ay musulman lañ mm-hmm. ay musulman lañ loolu lañ wax non lu diina wax duñ ko def la moo tax yeneen dëkk naar yi parce que Arabie Saoudi bi ku joob yi foofu ngay dem ñuy doxal dëgg la moo tax ñu Sénégal ñoo doxal dëgg bàyyi maslaa bi non nañ bàyyi maslaa bi maslaa bi sëñ Xaadim Sénégal maslaa bi daal bëri billaahi matelas bu bëgg man chaque jour que jëfee damay déglu RFM 6 heures du matin ba nu may wàccee damay déglu Alaaji Assane di naan Alaaji Assane paaw mu naw la mais Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafa naqaree waxee da naan benn yóbbu ko ba cent dafa naqaree waxee mais xam nañu dëgg li dëgg nañ ko def ku nekkul si yoon nañ la teg si yoon. Mhm. ñu bàyyi mbaslaa bi. Mhm. ku sàcc ñu def teg la si yoon. ku rey ñu teg la si yoon. Mhm. teg la ay daan yu métti. ñu bàyyi maslaa bi. dañ bàyyi maslaa bi tant que maslaa baa ngi dox rek. Sénégal c'est comme ça. billaahi wallaahi du gaaw dañ. mais nguuru Macky Sall wax dëgg nguuru Diomaye Diomaye Faye moom. ah am naa si yaakaar. am naa si yaakaar mais nañ bàyyi maslaa bi daal nañ bàyyi lépp loxo yàlla. gëm naa ne yàlla dina leeral lépp. incha allah Aziz moom gëm naa ne tamit fu mu jëm moom sama xel sama xel dal na si quoi. macha parce que kii ni mu def sax raaxam la dina ko teggal ay bàkkaaram yu bëri hmm. te yàggul nii nii rek fan semaine bee rek bu mu ba mu feebaree jël na almere di ziar papaam. ajuma day di ziar papaam hmm. ajuma ci génnu Sénégal. wala sorewul Dakar tuuti chaque aljuma dem ziar papaam waaw papaam gërëm na ko mu nuyu gërëm naa ko ay mbokkam gërëm nañ ko te gëm naa ne tam waa Sénégal gërëm nañ ko az az hmm. dama koy bàgg yàlla rek yàlla dina ko fay xolam hmm. yàlla na ko yàlla bu baax yàlla jërëjëf acca jërë ngeen jëf internet yi ba tey ñu ngi fii ci Pikine ginnaaw raay ñi nag ñu jàkkaar lool xam ngeen seen diggante ak Aziz Dabala dem si yàlla mi fi bàyyi ko muy Pama Dieng di ñi nga xam ne mooy Boga wala ñi nga xam ne moom la fi taxawal di ay xaritam Pama Dieng ñu ngi lay ziar bu baax di la masaw li nga xam ne moo dal suñu kaw di sa frère di Aziz Dabala waaw mais maa ngi leen di fay di leen masawu aussi di masawu Sénégal yëpp di masawu képp kuy artiste te leen wax ni ku ku am njëriñ dem na ku ku Sénégal yaakaaroon dem na di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko. macha ku amoon njëriñ dem na sa relation moom sénégalais yëpp xam nañ ko ndax yàgg na la feccal say clip mais tout récemment rek grand théâtre gis nañ liggéey bu ci def ak yàgg sa sœur di Sabel. waaw waaw man sama premier concert. Mm-hmm. sama premier concert ñoo ko defandoo. waaw ah, sama premier concert. Aziz était là. biir boobu dafa xeex. Nabou lay nangu xeex bi ci moom xeex. et boobu ba tey noonu la may xeexalee. ma koy xeexalee noonu. ba yàggul dara. moo ci mujj. donc euh, dama koy ñaanal nee naa ñi ko rey jëw jëw nañ ko jëw nañ jëw nañ ñëpp. et bett nañu gaynde aussi ah. parce que gaynde dëgg la woon. Mm-hmm. il malaat malade wérul wóor Nabou moo ko yóbbu hôpital le dimanche parce que dafa tooy dafa grippe dafa feebar ah ñu fekk ko këram def ko jëf ji donc bu euh, nekkoon ci ay état am du du demee noonu ek jëw nañ ñëpp waaye nag ñu ngi ñaan justice def liggéeyam parce que nag yu mel nii dafa war a jeex dafa war a jeex Sénégal yu mel nii dafa war a jeex mhm. fekk yaakaar ku yaayam yaakaar mhm. famem yaakaar ni ngay liggéeyal yaakaar la mhm. nga rey ko nii dem rey ko teg ko dem après mu jeex donc il faut justice def liggéeyam euh, ñu ci ciy woo képp kuy autorité di ci woo justice Sénégal lu ñu mës a song daan nañ ko bii nag moo ñu ci gën a soxal parce que c'est un frère c'est un lion c'est avenir pour le Sénégal mm-hmm. pour culture Sénégal donc euh, ñu ciy woo ñëpp di ko ñaanal suuf oyof ci kaw mm-hmm. yàlla fay ko xolam xam xamul lu xamul xamul lu metti mm-hmm. xamul lu ñaaw xamul lu bon xamul dara lu dul liggéey rek bégal nit ñi rek ñun artistes yi ñun ay ay dof lañ xamuñu lenn lu dul bégal nit ñi rek fuñ toogee rek ñu ngi créer lu bégal nit ñi xam nga nit ñi nañ gestuwaat artistes yi quoi. parce que xam xamuñu dara lu dul bégal nit ñi rek. Mm-hmm. xam nga et que na nit ñi ba dem. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla fay mbégte yooyu. di jaay ci ci anam biñ ko euh, faatee moom ak Waly moomu mu nekk jëf ju ñaaw boo xam ne ñëpp dañ koy ñaawlu jamono ji euh, sa relation ak ki nga xam ne mooy Aziz Dabala bàyyi ko fi xam nañ ni yéen ñaar ay xarit ngeen woon mais laata muy génn àdduna yéen ñaar lan ngeen mujj a waxtaan. mu ne ma ñiy rayaate dañ leen war a teg ci télé bi. Euh, maas leen ba ñu dee. mais vocal baa ngi nii. Mhm. moom lañ mujjee waxante parce que moom day daf ko met dafa porté combat xam naa nag dañ ko dégg quoi. Mhm. yàgg naa taxaw di kàddu. waaye si rek ginnaaw raay rek suñu koñ nag mooy waaye si rek ginnaaw raay rek suñu koñ yeah donc lii la ñu mujjee waxante. fi jàpp di teg nii nga rey boobu doomu kii lañ rey. ok doomu magu kii. Mhm. affaire bi metti ko. Mhm. donc combat yi yàgg na ko porté yàgg na ko kaas. ba waxee mu ne tant que indi ñu fi pon peine de mort rey yi du jeex. gis nga moom rey nañ ko donc il avait raison. gars yi nañ jug ci lii nañ jug ci lii banditisme du ngóora du ngóora banditisme du ngóora rey mm-hmm. nañ ku leen gënal doon góor fuuf mm-hmm. ku leen ëpp avenir fuuf mm-hmm. ñu ngi naan justice def liggéeyam te da ko Sénégal yëpp ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolam Aziz jaajëf jaajëf fay waaw maa ngi lay fay sañ bi. di la di la jaale métit bi nga xamante ni moom la ñu bokk. billaahi billaahi ñu leen koy jaale yéen tam parce que ku nekk mun nga ko jaale sa bopp Aziz moom Aziz ñëpp la moom macha allah mooy loolu. métti na nag mais yàlla baax na. billaahi. boo ñu doon euh, defal ay témoignages ci moom lan nga ñu mën a wax. na ku baax ku bëgg nit ku yaatu. koo xamante ni du fekkee lu ñaaw. Hmm. moom bu fekkee lu ñaaw si saa si da koy defar. te dëgg lay ànd ak nit Aziz Dabala boo doggawul mënoo nekk moom dafa jub après dafa jub ku gëm yàlla la ku ku ku nekk benn jàmm boo xam ne mooy loolu taar tardé waxtu buy ànd ak yow day bëgg nga correct bëgg nga jub xam nga mu nekk ku baax koo xamante ni mooy loolu fu mu toll dañuy nemmeeku parce que ñun mun naa ne moom man benn côté bi yar na ma parce que ànd naa moom ak bam daal mm. fii ginnaaw raay fii mu nekk Azizu ñëpp barki yàlla nekk bu baax koo xamante tey daal man mën naa ne xol yëpp a yëngu. fan nga xamante ne moom. Euh, Aziz maa ngi xamante moom fii ginnaaw raay fii. waaw parce que man sama kër maam fii la nekk. fii laa xamante ne moom. Mhm. ak ñoom nabu lay Balla ak euh, Samba yar ndeysaan waaw nga ñëw ni ko dama bëgg a fecc. non moom moo ma gis. Mhm. benn jour programme mu ne xale bi dafa mën a fecc Pikine la ma gisoon mu ne xale bi dafa mën a fecc fa la nga xamante woon. Mhm. xam nga après ñu jëlante ay waaw ñu jëlante ay coordonnées waaw xam nga ñu eh. dem ba mu ne ma doo ñëw sama salle affaire yi ma ne ko may man mënu ma damay jàng rek affaire xam nga mu mm. laaj ma fu ma dëkk mu fexe ba ma ñëw saalam mm. mu nag lu mu def ci man lu bari donte que bàyyi naa bu yàgg mais yàlla mi ngi ma booleeg artistes yi ba léegi maa ngi ànd ak ñoom parce que man waaw parce que man ñoom laa xam mm-hmm. ñoom laa xam mm-hmm. waaw mais ñooy sama famille daal loo koy ñaanal waaw ñu koy ñaanal yàlla rek eh, yàlla xare ko aljana Waly aussi ndeysaan ñu ngi koy ñaanal moom ndaw la boo xamante ni mm-hmm. dem na ci ci loo xamante ni ndeysaan demit mu métti waaw mais dañuy sant rek mm-hmm. waaw métti na trop Aziz moom suñu Aziz la billaahi dañuy sant yàlla ñu koy ñaanal bu baax yal na yàlla yërëm ko di ñaan yàlla ki def ñaawteef bi aussi mm-hmm, mu gaaw feeñ parce que gaañ na xol yu bari daal gaañ na xol yu bari macha allah jërë ngeen jëf waay merci xaar waxtaan bi daal. mais ñu maa ngi lay siyaare. maa ngi lay dellu siyaar mel ni tey dañoo yeewaale naqar wala dañu ko fanaan tey ki jógee fii nekkoon sa xarit lu ci bëri ñu xam ko ak yow tey jii ñu ngi la koy jaale. waaw ma koy jaale Sénégalais yëpp di nuyu Sénégalais yëpp di baal ñëpp ak wax métti na trop di wax justice sur Aziz Dabala ñuy xaar suñu président association mu ñëw dafa voyagé woon ñu Pape Moussa Sonko mais jël na vol yegg si na Sénégal léegi mu yegg si fii ñu métti ko trop nag ci tur association bi yëpp ñu ngi jaale famille yëpp yaayam léegi bi ma gisee téye sama loxo sama àdduna bépp tukki vraiment. kon looloo la jooy la. billaay man damaa jaaxle sax ak Seydina Mouhamed. ma choqué ba léegi nelaw nelawuma parce que ñu ma woowee gëw ma ko woon pour man seen affaire yooyu ñuy def la rek. kañ nga ci guddi gi. ci guddi gi ay 22h yooyu 22h 22h30 ci ñi ko njëkk a yëg ci laa bokk. mais ñemewu ma woon wax pour man ay affaire seen affaire yooyu ñuy waaw affaire yooyu ñuy d'habitude ñuy def rek ci laa wootee ci téléphone Aziz Dabala mu fay ma woo Nabou Leye mu fay. ma daal di woo Mbay Koutia ni ko foo nekk moom mu ne ma dëgg la ma ne ko du dëgg ni ko bàyyi sa affaire yi ngay def waaye après ci la ne ma laajal diw ma daan ni ma daan ni Ousin ma diw wool ma Samba Ndour amu woo ko Samba Ndour wax man ni ma dëgg la de dem naa yabale naa ñu dajji bu nabu lay dem na ak ñaari magu ay zabalaay dajji nañ buntu bi dëgg la ci laa defe audio ci association bi dugal ko sama statut gars yi jot ko mu nekk nouvelle bu triste nouvelle bu naqari parce man bi ma ko mujjee jot yàggul dara mu ngi xaw a tooy dafa tooyoon jóge tournage clip mu boogaa dem këram paas ma ko mu naan ma mu may tooj naan ma waaye yaay maa ngi feebar seet si woo ma ba tey ma ne ko dinaa ñëw sëy bee ma téye rek mu ne ma sëy de yow moom référence la ci réew mi xale yee la bëgg téye sama yaay ji affaire yooyu nii nii laa ci toll ci guddi gi defe naa ci nga dem këram waaw ci laa dem këram ci laa dem fekk ñu koy génne hmm. ah, da nga cee yem waaw bi may ñëw la ñuy génne koor yi oto bi di dem xale yi di jooyoo ma ñëw ñu laxasuma man am waxal kajaa kii mu ngi koy woowal na ko def mais libre ci lay gën a déggee parce que équipe dafa am problème. ci. ma yem ci xale yi laxasuma man jooy ma sax ba tey. man fii laay soog a jooyee quoi parce que dama xool yaay ji affaire yi triste mu metti bu famille bi ni mu bëggee ndeyam. dafa xeex ba dee Aziz dafa xeex liberté am ba dee. bañkat la. nekk bañkat waaw déggoo ma ne la euh, ki ko rey rey na gaynde bañkat la ñu rey. Mhm. ku am fulla la ñu rey ku am fayda la rey bokk ci daraay ñàkk fayda dégg ko ci daraay détail mm-hmm. yal na yàlla leeral lii et justice tamit nañ def seen liggéey parce que dëkk bi léegi amul sécurité ci mm-hmm. benn sécurité boo génnee sax sa xel du dal mm-hmm. wala xotuma nag nga nekk sa kër yow kese sa xel du dal franchement parle métti na trop mais dañuy jël yëpp delloo ko ci yàlla ndax yàlla moom moo ñu sàkk kenn xamul kañ la ak nan la xamul ndax man maa ci topp xaw ma ndax keneen ak keneen a ci topp kenn xamul waaw kon nañ delloo lépp rek ci loxo yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax. mais instant bi lan ngay dénk yaay lan ngay dénk famille bi. Ah, yàlla may leen xolu muñ rek amuloo dara looyoo parce que yàlla kenn mënu xëccoog moom su fekkoon dafa feebar sax suñu borom jël ko. yàlla kenn mënu xëccoog moom waaye lu jóge ci sababu nit mm. man man. benn xale bi sax moom a gën a choqué tëgg la Aziz day wala na ma mm-hmm. mais waale ma gën a choqué ki nga xam ne jirim la ñàkk mm-hmm. ndey ñàkk baay ak jëf ko rayee ak rey bu ñaaw bu ñu ko rayee waaye yaayam génn àdduna ak baayam bàyyi ko ñetti rakk ay ay xale mm-hmm. mu ñëw fii di daan doole yàlla boole ko Aziz dabalaa muy liggéey muy ànd ak Aziz Dabala lu Aziz Dabala am fukki dërëm bokk kook moom xale bi yóbbu ko seen kër dundale ko ay rakkam depuis Kolda ah, yàlla dina niital lii de barke Seydina Muhammad yàlla dina ko niital de yàlla na ko yàlla leeral ci nu mu gën a gaawee ki def jëf ju ñaaw ji est-ce que benn nit la sax tamit aussi benn nit ah, ñu ngi ñu ngi man moom wóolu naa sama sama justice man te wóolu naa sama sama police tamit aussi mm. parce que fii lu gën a garaaw am na fi mm-hmm. teewul tegu ñaari fan tegu ci ñu jàpp ba yóbbu ay téléphone u Aziz Dabala yóbbu téléphone Waly suñ localisé téléphone yooyu gëm naa ni mën na feeñ mais ñu ci bëri ba pare dañ caabi bunt bi il pare ci ginnaaw caabi yóbbu caabi ci rey nit ba pare sàng ko dara mm-hmm. ñu ci bëri à chaque fois dañuy noonoog ñi nga xamante ni ñoom ñooy fecckat yi mu mel ni rôle fecckat ñu ci bëri dañ ko xam waaw heureusement suñu président yegg si na sax Pape Moussa yegg si na mm-hmm. euh, ah waa artistes yi moom dañ leen a single rek mm-hmm. noonoo ak ñoom mais Aziz dafa xeex loolu moom dafa doon xeex moom da xeexal boppam loolu mm-hmm. Aziz Dabala lu ne wax nañ ko ko lu ne jiiñ nañ ko mais dafa xeexal boppam mm-hmm. dafa xeexal boppam loolu bañal boppam loolu mm-hmm. ba tey mën naa ni fecckat yi ci Sénégal ñu ci bari moom mooy taxaw ñu fecc clip demande cachet ñu fay ko ko waaw ah, bien sûr ñu fay ko ko Aziz Dabala dafa bëgg rek dafa dafa fecc ba tooy tooy tooy bëgg ay répétition ay société di ko jël muy def caravane. mais am na ñu naan est-ce que est-ce que du lim doon wax naan. Euh, fecc bi fecc bi nga xamante ne moom lay fecc. woo ko woo ko mm-hmm. am na ñu ci bëri euh, bët ki dem gis na nu mu def sorti di wax di dànkaafu rey gi nga xamante moom mooy. am ci man après laa ko yëg mënuma ci sori parce que loolu après laa ko yëg. Mm-hmm. mënu ma ci sori je peux pas ma mêler loolu moom après laa ko yëg démb laa koy soog a yëg man gisuma woon loolu mm-hmm. démb laa koy soog a mu mel ni am na ñu bëri dañ ñu ngi naan mi ngi doon tàggoo mais bàyyiwuñ ci xel ah doy na waar doy na waar nañ jël lépp daal teg ko ci loxo yàlla ndax munuma ci prononcer ci lu bari mm-hmm. parce que mu ngi ci loxo yoon dañ xaar yoon def liggéeyam ñu xaar lan la ñuy lan la lan la yoon di teg suñuy loxo buñ jotee koor yi dem suuli suñuy rakk ndànk delloo lépp ci loxo yàlla sant yàlla bu baax a baax. ngeex waa association bi ak fecc waa association bi mag ñi maag Pape Moussa ñoo fi ñëwagum xam naa ñi ci des choc moo leen jàpp. ñëpp a choqué wu ñëpp a choqué ah doy na waar daal doy na waar doy na waar. dañuy def conférence de presse léegi léegi léegi incha allah bu soobee yàlla président lañ doon xaar mu ñëw rek ñu soog a def conférence de presse incha allah. kontaan nañu jërëjëf jërëjëf. maa ngi koy ñëw ak gis maa ngi ñëw léegi maaleykum mbokku Sénégal ah mbokku àdduna ñu leen di nuyu yéen ñëpp di leen masaw di leen jaare lu ñu bokk aussi ku xam euh, Aziz Dabala tey moo ñu fi andi ah tey jii ñu xëyeek ak naqar euh, gis nañu ni dañoo yeewu yëg meurtre ah yàggoon na sax depuis dimanche ñëpp yëg meurtre tey jii nag ñu ñëw fii ah ci kër yaayam tasanteeg fameem on peut dire maanaam fecckat yi. ah gis nañu suñu sis euh, Ndeye Gueye ah grand pa Moussa ñoom ñëpp ah ñu am ay kàddu yoo xamante ne dañ ko cee bëgg yëkkati tey ñu yeewoo ak nag di ngeen di jaale baax a baax euh, grand pa Moussa si sa ndey ak képp kuy fecckat ñu leen di nuy bu baax a baax yeewoo nañoo tiis tey jii ñu ñëw fii Pikine ginnaawraay raay Aziz Dabala mu metti ñëpp ba ngeen yëgee nouvelle bi nga xamante ni mooy meurtre Aziz Dabala naka ngeen ko dundee. waaw salaamaaleykum mu ngi nuyu Sénégal Euh, di jaale Sénégal yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ndax démb ba tey kenn nelawul Sénégal yëpp ko lu ñu ñaan ñu màggali ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm di ñaanal suñu rakk asi Dabala ak suñu rakk Waly bi dëkk Kolda te ñoom ñaar ñu boole leen ñoom ñaar yal na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana yal na doon yal nañ léccu luñ doon def fii ci àdduna mu nekk nouvelle bu metti bu tiis mu naqari àdduna bi yëpp waaw loolu tax ñu ñu xaar doon xaar suñu président ñëw ñu Pape Moussa ci tout association de mbalax et chorégraphe du Sénégal te Aziz laa nekkoon ci tamit bokk ci porte parole yi bokk ci euh, membre organisateur bi man ak moom ñoo ko géré woon ak Cheikh Naar Fall ak Boga donc suñu borom dogal li mu dogal ñeneen mag ñi ci des xam naa ni ñu ngi ci yoon bi di ñëw mais comme président dafa voyagé woon moom démb bi mu ko yëgee automatiquement dafa dagg dafa dagg billet vingt deux heures la ko la ko yëg fajar gi la départ yegg si mu ngi nii soo a yegg Sénégal dafa dem këram simmeeku rek jubal si fii moo tax ñu ko doon xaar ba ba tey gis nga xale artistes yëpp a ngi nii kenn mu téye sa bopp ñoom ñëpp a ngi fii ñu réclamer justice pour Aziz Dabala parce que tamit lii dafa ñaaw trop trop trop trop trop trop fecckat yëpp a ngi nii góor ak jigéen ñëpp na trop trop trop Voilà, c'est émouvant, c'est c'est étonnant vraiment. léegi yéen cadre da ngeen wax nu mu demee. Eh. yónnee loxo yi rek. Eh. ma léegi kàddu ba pare mm. dañuy jox ki nga moom mooy président moom itam mu yëkkati ci parce que nag li ñuy ñaan rek moom euh, justice def liggéeyam ndax mm. lu metti la vraiment lu yàggul dara Aziz Dabala dégg nañ ko ci déclaration bi nga xam ne def na ko tey muy moom Pape Moussa ñi ngi lay nuyu bu baax di la jaalewaat en tout cas li nga xam ne ñun ñoo ko waaw na ngeen def ñuy ñëpp di am métit nag tey mm-hmm. vraiment tey xol yi métti na tooy na ndax Aziz ku ne xam na ni Azizu Sénégal la donc tout d'abord di ko jaale famille mais di ko jaale danseurs yi fi ne ak ñi fi nekkul di ko jaale tamit Sénégal ndax yàgg na bëggal Sénégal muy côté danse côté théâtre mais jël nañ koo xam ne dafa toll ci diggi ndawam toll ci diggi dooleem mu metti trop vraiment kenn nelawul parce que Aziz daf fee xaj dafa amoon joie de vivre nit la boo xam ne wax dëgg yàlla deful dara lu dul bégale donc perte nañ ñàkk nañu man nag maa ngi wax ci turu association des danseurs et mbalax du Sénégal mu doon loo xam ne ay fecckat lañ dëgg la waaye ay boroom famille lañu ay ñoo xam ne dañuy jàppale seeni ndey ak seeni i kooku lu mu am ndeyam ak baayam lu ko yóbbul yaayam wax na ko léegi donc nee na nee na léegi Pape Moussa loo ko jox indi na ma. billaahi billaahi wallaahi tallaahi wax na lu wax na lu tooy sama xol. Mm-hmm. Aziz seetaanul famille benn yoon. donc ki jël lii lor na famille jàmbur ñun nag ñaan la ñuy mën ndax ku ne xam nañ ni suñu justice macha allah. Mm-hmm. police macha allah. depuis démb ñoo ngi gis ñu ngi ciy def lu ne. moo tax wax ji sax du bari. Mm-hmm. parce que comme lu nekk ci enquête la. di ñaan nag justice def liggéeyam ba mu mat sëkk. pour famem mais tamit pour Sénégal. comme ni ma ko waxee léegi si Aziz du Sénégal mais Azizu monde bi yëpp la ndax mi ci série tey ñu ñu danseurs amee amee amee euh, perte noonu la tamit comédiens yi am perte. donc gars yi maa ngi leen koy jaale ñoom ñëpp Aziz moo dàq ñaw day ñaw. Mhm. dëj bu am tout récemment am naa sama yaay gaañu na ah? Aziz moo fa ñëwaat délégation ci turu association bi mhm. képp dëj bu mu mës a am association bi Aziz lay lay lay lay lay lay yebal mhm. moom ak ñoom Cheikh naa Fall mhm. benn comité boo xam ne ñoom ñooy dem pour loolu banneex Aziz mi ngi taxaw naqar Aziz mi ngi taxaw mais vraiment man maa ko wax du ma waxantu nit ku baax la nit ku am xol la perte nañu lenn rek la ñun ay danseur lañ mais ci dëkk bi lañ dëkk damaa bëgg justice def liggéeyam ci turu danseurs yi turu mais Sénégal gi yëpp parce que nag wax dëgg yàlla nag affaire yaa ngi bëgg a bari bu ñu waxantee dëgg. injustice bi injustice bi. ba pare nañu sekk jàmm fii Sénégal la. Mhm. Sénégalu jàmm la. Mhm. Sénégal jàmm fi mu a xew jàmm fi mës a am. nga la kuy rayati na nga xalaat ni yow suba mën na dal sa famille. Mhm. parce que lii dafa metti xale bu ndaw nga jël bakkenam jarbaatam nga jël bakkenam nga génn dem sa yoon yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp moom it nag yàlla defal ko jàmm fa mu jëm parce que vraiment Aziz Dey wax dëgg yàlla nit ku am xol la man moom fu ma jëm damay ànd ak moom ñëpp xamee nañ ma Aziz Dabala ñëpp mais nag yàlla tamit bu soxlaa jaam ñàkk en tout cas daal ñun association bi mu ngi nii ñun danseurs ñun ñii ñëpp damaa bëgg nga jël ñëpp ñëpp ay fecckat leen defuñu maquillage waaye ñoom ñëpp boo leen xoolee ñu ngi ci tele yi ñooy bégal doomu aadama yi mhm. mais ay nit lañu lii nag li ñu def Aziz Dabala du yëfu nit damaa bëgg nag wax dëgg yàlla ñuy def yëfu nit ñu ngi leen di bégal wax dëgg yàlla police xalaatal ni euh, justice xalaatal jàppal ni ñiy bégalaate tey am na loo xam ne da leen naqar ngeen fajal ñu ko dem leen ci ba jeex parce que metti na trop di jaalewaat ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. Mm-hmm. yàlla na jàmm yàgg. Pape bi ñu taxaw ak yow euh, mm-hmm. ba dem te du la laaj. parce que mm-hmm. wax nga ko Aziz Dabala sa frère la woon. Euh, li nga xamante ni nga mais mooy li ma wax rek Aziz li ma dund ak moom Aziz sama kër ndogoo na fa añee na fa reeree na fa. maanaam des fois wax ji mooy bari rek mais ñun ñii ñëpp dañoo sekki jàmm des fois dañuy yendu des fois dañu xam ne dañuy sekk jàmm carrément. biis nag moo xaw a nit ñi di dëkkalante fii mais ay nit lañu ay nit yu nite nag. Mm-hmm. Aziz ñëpp la man la sekkal nag man jàmm. Mm-hmm. mais amul fii ku mu sekkal a jàmm ñëpp bàyyi lu ñuy def ñëw ku ne am na lu mu metti démb maa ngi dégg am na ñu doon def loo xam ne wax dëgg dem joué ji lépp la ñu bàyyi. Mm-hmm. dégg naa ay ay ay ay musiciens yoo xam ne sax bàyyi nañ seen concert ndax Aziz ndax Aziz dafa la. ñu doon màggali wàññeeku. ñu doon màggali wàññeeku. donc daal metti na daal. Aziz suñu Aziz la perte nañ d'accord waaw mooy wax naa ko léegi mooy justice c'est pour tout le monde mhm. donc justice pour tous ci dëkk bi lañ dëkk doon ay sénégalais duñu guinéen duñu malien du duñu dara ay sénégalais lañ mhm. te bu ma leen waxee xam naa nañ ko def bu ma leen waxul dinañ ko def ndax ñun justice bu xarañ lañu am justice bu baax la ñu am te dinañ def seen liggéey mais di leen ñaax rek nu mu gën a gaaw gën a baax ngeen gindi ñu parce que xool yi tooy na xol yi tooy na trop te ki def lii mën naa def leneen ak leneen on sait jamais ah donc mi ngi noonu justice daal ñu ngi leen ciy woo di ci woo suñu président suñu président Diomaye suñu premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi leen ci woo ñun feccekat yi ñun bégalkat yi ñuy bégal doomu aadama yi am nañu naqar bëgg nañ ngeen taxaw si nu mu su gën a gaawee te yàlla rek tax waaw metti na trop jërëjëf. man kay man lan laay waxati président wax na lépp li mu wax rek loolu laa wax ñu ñaanal ñëpp jàmm di leen remercier yéen tamit merci beaucoup jërë ngeen jëf. la la ilaha illa allah la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 voilà heure bi daaw ñoo àndoon màggal. ñu doon préparer pour ren pour demaat mais yàlla nii la ko bëggee dañ ko koy sante bu baax te di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee métti na trop vraiment métti na. macha allah sa relation ak ki nga xam ne mooy ki dem muy Aziz Dabala ndax gis nañ seen benn vidéo ci bi ngeen doon dem Touba ndeysaan. waaw moom chaque année ñooy ànd dem màggali voilà moom mu doon sama góor doon sama xarit. doon sama genn wàll ndax moom foo ko gis mu ngi sama wet foo ko gis mi ngi sama wet ba pare en plus di jouer koo xamante ni sama frère la sama jumeau la à chaque fois ñu bokk benn staff. bi nga yëgee tiis bi naka nga la def. waaw bi ma ko yëgee démb metti na trop parce que man dafa mel ni dama ko sentiroon sama yaram parce que bi may laaj kañ la ñuy dem ma naan kaa man man est dinaa dem màggali. ren jii préparé wu ko de mu ne ma non dañuy dem de ba mu ne ko waa ah, après dinaa réfléchir voilà. kañ ngeen di déggante. oh ma xool ma euh, depuis euh, jeudi avant Tarba di jouer Saly lañ ko doon déggante di wax si affaire màggal bi. Ah, lan ngay ñaan nag mais dañoo war a def ku rey ñu rey la parce que lii dafa metti te Aziz amul a kenn rencontre fa dëgg yàlla jotewul ak kenn Aziz bu liggéeyiwul. mi ngi këram demul dikkul wallaahi azim loolu mën naa ko seedeel ndax ku dee ak sa bàmmeel. sa oh, sama dernier kàddu mooy affaire màggal lan doon wax moom yàlla dafa dogal daf ma bëggal boppam daf ma bëggal boppam voilà loolu affaire màggal daal lan doon wax parce que ñun ñooy ànd màggal yi daal ñoo ko ànd màggal yi mais ma koy ñaanal rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge voilà mais Sénégal metti na tamit aussi Sénégal dafa metti dañu war a taxaw tiit. ku nekk xool fi ngay taxaw fi ngay dem fi ngay dëgg sa ndegam ku toog néegam saalam defoo dara demoo dikkoo ñu fekk la fa ne la rey rey sa rakk boo xamante ni yoonam nekkul si dara tamit dafa metti metti na trop yàlla baax na man tamit maa ngi leen koy jaale yéen ñëpp لا إله إلا الله محمد رسول الله bokk bagaay ñu ne maa lay fay di nuyu di nuyu euh, di nuyu famille aussi maa ngi leen di masaw li nga xam ne moom moo am di leen di jaale Aziz àdduna ndax li moom àdduna yëpp ko yëgandoo donc boo xoolee par rapport ak ci côté réseaux sociaux bi da ngay xam ne li àdduna yëpp ñoo ko yëgandoo donc euh, di wax ne daal li moom ñu noonu daal noonu quoi. wax nga ko nee nga àdduna yëpp ko yëg du Sénégal kese ñu yeewoon ak nakar Aziz Dabala nee naa du Aziz Dabala fecckat yi kese Aziz Dabala artiste la ak théâtre kat yi ndax gis nañ ci théâtre la njëkkee tey jii Pagaye sa relation ak Aziz. waaw Aziz sama relation moom àdduna xam nañ ko ndax man mën naa ne man la mujjee tourner clip mhm. clip bi ñu tourné sax génnagul. ma xool même pas yaagul maa ngi moom ñu ànd Fatick mm. dimanche bee passé ànd Fatick jóge Fatick ñëw joué si ci guddi gi xam nga man suma suma suma suma waay la suma xarit la te vraiment fi mu fi mu dëkkoon ci euh, technopole bi soriwul sama kër dama daan dem des fois xam nga ñu taxaw waxtaan ba mu présenté ma fa benn waay bu tudd Babacar d'ailleurs sax kooku démb moom moo woote bi ñuy dajji foofu bi ñuy dajji këram day mën a xam li xew ndax moom la Nabou lay ñëw wax na ko ñu ngi koy woo jotuñu ko deux jours man nit ñi may woo rek naa ma ñu ngi koy woo jotuñu ko donc si la Babacar ne ak Nabou nañ jéem a xool ñu ñu xool ndax comme ñu ngi koy woo jotuñu ko ñu bëri tamit yaakaaroon ne dafa dem Touba Nabou lay ne leen demul ndax man ak moom ñoo waroon ànd dem Touba Babacar nee na mu woo menuisier bi menuisier bi ñëw ñu daj bunt bi. biñ ko daajee moom bi mu ubbee dafa tiit ba arrière Babacar nee na dafa arrière c'est parce que ni mu gis melokaanu appartement bi ni mel xam nga arrière mais gisul Aziz mais booy bi la seen ci ci ci douche bi ak melokaan bi mu mel après ñu xool porte yi mu tëju si la génn moom ñoom Nabou Leye ñu génn si la ñu woo police moment boobu nag man mi ngi ma fekk ma jugee Pikine di ñibbi sama kër mbaaw si la ma woo téléphone ma booy naka mu ma ne ko saa mu ne ma Aziz gëj nga ko dégg ma ne ko Aziz waa fan yi déggante wuñu mu ne ma ah ma ne ko waaw ah, mu ne ma waa ñun de deux jours dañ ko topp di ko woo jotuñu ko ba finalement Nabou Leye daf fi ñëw ñu dajji appartement am mais booyam bi mu nekkal fii dañ ko rendi quoi mais Babacar yow lan ngay expliquer nii mu ne ma si ma ne ko booy bi dañ ko rendi mun ne ma man ma ko analyse moom jotoo leen ko mun a ma léegi nii woo wootewaat nañ mais téléphone am jàllul mais police ñëw na fi mi ngi def liggéey donc ñu ngi ci suuf gisaguñu Aziz nag mais xamuñu affaire yi lan moo xew mais booy bi moom gis naa ko man ba maa ngi ci suuf nii sama place ndax moom fi mu fi restaurant am nekk ak kër gi daanaka ñoo jàkkaarloo. ma ne ko ah boo mu ne ma ma ne ko léegi kon baal ma xaar tuuti ba xam ban information la ñuy am ma toog lu jublu une heure de temps une heure de temps yu teg tuuti dégguma ko ma woo ko ma woo ko ne ko allo Babacar mu ne ma waaw booy naka mu sayee ma ne ko sayee la mooy sayee mu ne ma Aziz tamit si la bokk dañ ko rendi ma ne ko mais Babacar yow lan ngay expliquer nii mu ne ma dañ ko rendi fekk man bi mu ma woowee téléphone wax ma ne ma gisaguñu Aziz ku dee ak sa bàmmeel mais sama sixième sens fi mu dem baaxul quoi ma xalaat ndax woo naa sama ménagère expliquer ko ne ko mais sama sixième sens fi mu nekk baaxul mu ne ma bul xalaat bi ngay xalaat nii mooy loolu bi ma ko Babacar waxee affaire bi choqué ma Babacar nag ne ma man dimanche laa ko mujjee gis dimanche la ñëw fii non bi muy ñëw dafa ma woo ne ma maa ngi nii ci taxi di ñëw mais maa ngi ñëw nga fayal ma sama taxi dimanche boobu la ñëw fii ma fayal ko taxi ay vingt heures appel baa ngi nii ay vingt si laa ko fayal taxi bi après defaral ko reeram mu yéeg bi mu yéegee nag si la ko Babacar gëj gisaat gëj ko dégg xam naa nag affaire bi moom bu dee am day nekk diggante euh, dimanche bi ci guddi jàpp fajaru lënd bi c'est parce que comme moom ay vingt ti une heures affaire yooyu lay yéeg waaw te moom Aziz Babacar mi ngi may naan niñ ko fekkee xam nga affaire bi nekkul woon bees bees quoi ndax moom ci saal bi la lañ ko fekk te dañ ko mujj dañ ko muur foofu noonu. Mm-hmm. waaw xaw ñu dégg ay coow yu mu mës am ay nit wala ñu jot ko menacé wala mu jotee nit nit ñi koy côtoyé comme yow mosuñ leen ko dégg mu ne jote naag diw. non man lii daf ma bett xam lu tax mu bett ma mooy Aziz bi ma xam mm-hmm. déjà Aziz. doxal ci dara luy luy luy luy problème Aziz foo ko fekk day day day wax nit ñi di reetaan bañ na ko ba mën bi ñuy tourner clip bi léegi léegi bi ma booyee di woo image yi muy ñëwaat ci ñoom dem nañ ci ba bu ñuy tourner pak danaan ko damaa bëgg nga def lii Aziz def ci leneen ba ma koy tooñ naan ko simple nit ñi ñuy reetaan muy muy animé foofu bon man xawma ko ci ay problème musuma toog aussi dégg ko muy wax ne dafa joteeg diw wala dara musul am man tooguma fenn dégg Aziz di wax te Aziz ku ko xam di ko fréquenté xam ne moom dafa am fu mu nekk fu mu nekk mooy bu waree joué ji dafay génn dem joué ji joxe li mu war a joxe mais bu joué jiwul donc day nekk këram te man foofu dem naa fa mais moom dem na ba sax si salle bi fa la def benn kii genre mat la yooyu noonu foofu lay mujj sax di fanaan waaw mais xamuma kenn ku mu jotal waaw tey mu wax ni Aziz Dabala en tant que artiste mu def lu nekk ci culture vraiment ñu bari ne peut-être waru woon ñàkk sécurité ba lu mel ni di ko dal mu nekk phénomène parce que c'est pas la première fois am quand nga dégg ñu ne ñii ne dañ ko rend ñii ne dañ ko jam quand yow en tant que artiste yan kàddu nga yëkkati ci loolu waaw loolu nag li ma ci mën a wax mooy mhm. dëgg bi moom tollu na foo xam ne ñu ñëpp ay doomu aadama lañ waaw ay nit lañ quoi c'est vrai que ne nag artiste moom yàlla def na ci moom muy siw day am tur donc ràññee ko day yomb xam nga mais jamono ji toll na foo xam ne day na waar day waar boo xam ne lii nga dégg ci Aziz du ci moom rek nga ko déggee chaque jour nga dégg ko te nekk na ay fee yoo xam ne damaa dem sax ba dama ne man donc man nit ñi li leen di def loolu lii lan la parce que ku ànd ak sa conscience tranquille waroo mën a tiim doomu aadama di ko def yenn yi kon nit ñi man dama dem ba mënatuma comprendre boo ba pare man fi mu dëkk koñ bi mu bi fi affaire bi amee koñ boobu am na sécurité boo déggee ma ne la am na sécurité Aziz këram ak euh, ay vingt mètres am na benn gardien buy ne foofu te koñ boobu am na ay làmp am na ay caméra xam nga beneen bi ci des muy tout le temps dafay am ay nit c'est parce que am na ñoo xam ne sax fa la ñuy gaare seen moto yi ñuy war a xëyee liggéey yooyu léegi man loolu moo ma jaaxal lan moo tax fee bi am donc ak koñ bi ni mu bindoo ndax koñ bi rëyul xam nga koñ bi dafa am écho ay étage ñoo ko tiim mu am tëli karo donc lan moo tax lu mel ni am ba jeex kenn kenn kenn yéegu ko voilà xam nga man affaire bu ma jaaxal mi ngi noonu. Hmm, li la jaaxal boobu bëri mu jaaxal quand même parce que bi mu amee ak léegi euh, ñenn ñi dañu naan ko ko def bu ko jegewul itam ku ko xam la parce que loolu moo nekk polémique bi instant waaw lii moom bu ñu waxantee dëgg rek ki koy def waxuma la sax xam bi. mais da koy day day nekk loo xam ne da koy travailler c'est parce que day xam heure bi mu fa nekk maa ngi koy wax léegi maa ngi naan ndeysaan boo demee booy biñ fa fekk sax moom dañ ko fa fekk rek ba lii dalaale ko mais amaana sax mën naa am du woon moom xam nga mais xam dëgg bi moom léegi doo xam quoi doo xam doo xam exact lan moo lan moo man daal man munu ma munu xaw ma lii lan la ko waa nan laa ko mën a waxee mais yéeme na daal ndax koñ bi mu amee ak ni mu demee li ma li ma jot a dégg si nit ñi mooy après ndax bu fekkee yoon dañuy def seen liggéey donc waa kër gi ñu ngi wax ne y avait un moment ñu ngi dégg benn bruit ci kër gi xam nga mais nit jàpp naa ne am na loo xam ne boo koy def kër gi ñu jàkkaarloo tamit am na benn waaye bu fa dëkk bu ne. benn yuuxu rek la dégg mais xam nga yooyu tamit doo jàpp ne dara la wala di genre xam nga mais doy na waar daal lii moom doy na waar te man jàpp ma ne benn nit moo ko def wala ñaar. voilà jamono bi ñu toll da ngay gis ci internet bi ñu naan sa ban Sénégal lañ nekk ndax léegi rey bëri na récemment rek am na benn xale bu ñu rayoon fii fan yi moom génnoon na ba def sorti loolu yàggul dara Aziz lii daraat ko léegi lan ngay mën a wax autorité yi ngay seetaan aussi. waaw ñu gën a yokk sécurité bi rek. nañ ko yokk rek ndax adduna bi moom doo sax xam billaay wallaay da ngay dem nii rek dañ yokk sécurité bi man de démb mooy li ma wax sama kër rek réew mi toll na foo xam ne nit ki jëlal sa lépp jox ko yàlla rek ndax nit ñee ngi daw di wut sécurité seen biir kër yi yaakaar na loolu moo leen di aar mais ki ñu fekk ba sa biir kër rey la ne kooku ah mooy li may wax rek saa yu ma julee loolu laay ñaan yàlla sutura yàlla suñu borom yàlla rek moo la mën a suturaal aduna bi foofu rek la toll da ngay daw di moytu mais am na fu ñu lay fekk moytu muñ a weesu loolu donc daal di ñaan yàlla lii metti na mais yàlla na fi gëj yàlla na nekk mbir moo xam ne moom yàlla na yem fii quoi et puis famille Aziz yàlla may leen xolum muñ c'est parce que lii dafa metti dafa metti trop lii waaw dafa metti quoi te Aziz xam naa ko guerrier la boo xam ne donc moom dafa doon da doon fight quoi waaw da doon da doon fight life am maanaam liggéeyam da doon fight mm-hmm. pour nekk dara ndax boo seetloo jamono yi ci ginnaaw ñu génn yëpp clip mu fi gis mu def it yëpp Aziz a ko def mm-hmm. ba bi ñuy ànd man ak moom dem Fatick mi ngi am ku muy expliqué naa ko dafa bëgg a def benn benn documentaire kon nga war a xam ne moom mi ngi doon ci mi ngi nekkoon ci tànk yoo xam ne feneen ak feneen ak feneen tey ndogal bii ñëw daal. Pagaye pour euh, wax nga ko récemment yéen a ngi nekkoon ci tournage clip ngeen am complicité ci moment yu mujj yooyu lan nga dund ak ak Aziz boo déggoo ma ne la bu ñuy tourné Aziz moo ñu gën a bëgg liñ doon def kee toog mooy Pac moo tourné clip bi Pac DJ. moo ko tourné mais gaanam la donc dañ doon communiquer man y avait un moment moom moo doon réglé sax ak ay pat yenn affaires yi sonn ci déguisement yi ba jour bi may yóbbu déguisement yi maa moom ñoo taxaw ci ci ci ci buntu këram di waxtaan mais tournage yi tournage nekk na loo xam lu metti la nga war a jóge lieu bi dem lieu bi dem lieu bi avant ngeen a lekk wala ngeen naan day metti mais Aziz toujours mu ngi joxe du onk te ñi muy àndal daf leen teg ci ay conditions yoo xam ne daf leen xamal ne liggéey bi lii la comprendre nga li may li may li may li may li may li may li may fàttali ci clip bi moom lañ ma doon wax léegi nii mooy bi ñu am na benn partie boo xam ne Pac mi ngi may expliquer naa ma boo bu ngeen bu ngeen demee ba ci benn moment am na partie boo xam ne danga nga waroon nuyonte Aziz affaire boobu day ñëwaat sama bopp rek waaw dama koy nuyu noonu. ba pare moom Aziz da doon wax ci clip bii ndax man Aziz tout le temps danaan lii bis bu génnee di wax ci affaire bi di wax bëgg affaire bi man ku ko waxoon ne ko lii dinañ ko tourner après doo gisaat image mooy loolu ba ci image yi nga xam ne clip bi génnagul moom teel naa defar ay image moonte ko pour xaar clip bi génn pour mu dugal ko bi ñu demee Fatick mi ngi ma koy wan ne xoolal li ma la monté ma ne ko mu ne ma man la di ree naa ma moo da dof affaire yooyu. war xam ne nag gaañ adduna bi daal mi ngi noonu daal. waaw mooy ñu dolli sécurité bi nañ ko dolli nañ ko dolli bu baax xam nga nañ ko gën a dolli sécurité moom du doy quoi nañ ko dolli xam nga lii dafa metti waaw ñaan yàlla mu yem fi xam nga. bu bañ a dal benn famille waaw ñu metti na trop trop trop trop waaw état bi nag ñoom la fi yàlla teg ñu jiitu donc ñoom ñoo yor sunu sunu sunu sunu lépp donc kon ñu ngi leen di ñaan ñu dolli sécurité bi tey ñaan yàlla réew mi ak réew yi ko wër yàlla na fi yàlla def jàmm. waaw jërëjëf ñoo